mbokki Leewtoo ñu ngi leen di nuyuwaat baax a baax Moussa Fall ci caméra bi comme nuñ ko waxee tey ñu ngi Adrien Senghor kan moo xewle duut ñaan borom jilaas jilaas production moom laa taxawal nii waaye tey dafa doon lu doy waar. ànd ak président Tabaski Niakh waaw président et mouvement développement de jilaas moom laa àndal nii waaw. tey ñu def drapeau maire bu commune bu jilaas waaw waaw ak Mbayang muy le lion monsieur El Hadji Ndour gaynde la ku bëgg eh, fu mu dëkk ku bëgg commune am ku bëgg dëkkam fonk ko nangu liggéey mooy koo xamante ne eh, man mënu su may wax fii ci moom ba suba du jeex ndax koo xamante ne eh, non biram wallahi al azim laa lay waxal de loolu yow ko tuddee El Hadji Ndour loolu président dégg nga loolu njogo itam ne tin wallahi wallahi wallahi biram kontaan rek daanaka du du jeexal na wax ji ndax monsieur le maire El Hadj Ndour xale boo xam ne Djilass la juddoo yaroo fa bugal boppam Djilass jël commune bi yëpp boot ko jóg ngir rek pour le développement de la commune de Djilass moo tax ñun aussi ndaw yi nga xam ne ñoo dëkk ci commune bi particulièrement Djilass tey bésu tey bii dañ ko ne 100 pour cent Djilass moom lañ ko woone tey ndax lii nii wàcce na firnde yi leer na lépp ndax kii muy du ñaan patron euh, Djilass production daanaka ñoo defandoo lépp champion bu mag la woon bu mag ki yor na saakam ay fan fan fu mu mosaan a ngëm rek ñoo maa ngi ci ginnaawam kon lii du hasard moo tax bés bu tey bi yëg-yëg bu mag la am bu mag kontaan na lool lool lool di ñaan yàlla rek. yéen ko déggandoo dina ñëwaat kii Mbaye Gueye la tëggkat la tey Moussa Fall daam lu spécial drapeau Mbayang Loum buñ ko booleeg gaynde gi ñu ne xale la bu màggee fu mu jëm danañ ci xam Jalika Faye Mbodj mu ngi ci biir. Moussa Fall topp ma caméra tey lamb dana wane boppam Mbaye Gueye bu ñu demee ci Jalika Faye dañuy waxtaan ak moom ñu xool lan moo tax moom mu teew ba pare def lu rëy ànd ak mbayang fecc bàkku doog a toog. looloo ah, bu ñu sant yàlla julli ci yonent bi sant suñuy waa ñaari waaju lamb dafa doon loomal dafa bokk su ñun ndax tey bu ñu tuddee mbayang drapeau Jalika ñëw rafet na. Maodo waroon naa ñëw ci bés bi mais dafa jàpp moo tax. ñëw ñëw nga yaay Maodo. man maay Maodo mooy man. ndax sama rakk la ñoo bokk ndey ak baay. kon nañu fekkante ci biir Mbaye Gueye. bu neexee yàlla koo koy ànd ak Maodo. ah waaw merci euh, wax nga dëgg man maa ko fi teewal donc moom nekku fii mais man maa ko fi teewal donc vraiment ñu am mbégte ak kontante ñëw teewee bés bi nga xam ne vraiment doomu waa Djilass moo ko yor euh, muy du ñaan mu nekk euh, xale boo xamante ne vraiment mu ngi liggéey liggéey bu mucc ay ci commune u Djilass kon nag bu amee bés vraiment mënuñu def lu dul ñëw teew ci bés bi jàppale ko gunge ko vraiment ba bés bi mun a réussir ça va maa ngi leen di fay. tey moom teewaay bi rafet na monsieur le maire ngeen ñëw teewal ko fi. waaw jar na jar na loolu jar na loolu parce que defal nañu loo xamante ne ñun bu lay war nañu ko fekkee sincèrement ku ñu ku ñu taxawu la lii rek lañ ko mën a fayee ndax defal nañu loo xamante ne sincèrement parlant mënuñ ko mën a fayee lii donc ku ñu ku ñu gërëm la ku ñu sant la. day naan 100 pour cent jilaas la. waaw 100 pour cent jilaas la tey moom Adou ngeen jilaas. waaw 100 pour cent ñaan jilaas. 100 pour cent monsieur le maire jilaas. 100 pour cent jilaas kon mbokk Leewtoo mu ngi noonu. merci mu ngi koy jël mu ngi koy jël attention fu mu jëm ak moom waaw waaye xale yi xoolal ndengeñ ba dafa yàgg ne ko baare demul. attention sukk na ba ñaari batu am yéen lu mu koy def jàpp na la fu mu jëm moom drapeau mbayang lu mu xoolal xoolal ñi ay fan si mbayang lañu waaw waaw bëgg fàllu xale bi jàpp ko mu ngay dem moom laa ilaaha illallaah ah waay waay daan na ko daan na ko daanal na ko kay amaa fan boog jël na ko waaw daan na ko laa ilaaha illallaah ay drapeau mbay ak lum waa xanaa nii lay xel di demee jël waa jël gaaw nañu ah. cawal xoolal ma lee Moussa xale bi jàpp na ñaari loxo yi dugg nanu mu ngay jéem a crochet attention la muy def du yombee noonu Moussa Fall xale bi dafa rasu moo tax mënta jot ci ngemb la mu ngi koy jéem a takk. mu ngi koy jéem a takk sotteegul jege na nu nit ña mbaa du ñu gën a ja yóbbu na ko daan na kom daanu ko. Tapha Fall loxo ci kaw bopp attention Libidor croché na loxo ba jàppante nañu jàppante nañu Moussa Fall ci caméra bi ñuy suivre ci Leewtoo TV Dame Sène ak Libidor Dame Sène moo ngi lu ñuul yi wan ñu ginnaaw mu waree parcelle ñu ngi nuyu waa parcelle la ba 26 li du lor jàkkaarloog ñun mu waree ngu ñaat ñu ne ngu ñaat ak ko wër Pey Dior Samel Cangaay ak Mbourwaay <laughs> Babacar ñu ngi nuyu waa ak yooyu xoolal ma attention ñaari communes ci digg géew gi saf nañu ba saf ndeysaan Saliou Diouf a ngi noonu ñu ngi mi waaye Alex Ka eh Dame Sène lañ koy poli war naa na li bi door ndombo ndax da ko bëgg a li bi door ñii moom xanaa mbaa nga ñu nuyu ji. d'accord champion. xëy 100 pour cent ci laa soob. jërëjëf champion Pape Maak Mimi laa ilaaha illallaah Moussa Fall lii na waar yëkkati la xabar waa Jilaas xew la tey. xam nga promoteur bi Jilaas la ba pare mu nekk bu baax aussi tuddee ko Mbaye ak Loum yi fi dal di takarnaase dal di ala daw mais tey daal moom tey sax xoolee suma. waa Leewtoo TV moom sama yëf lañu ñoom xam nañ ne sama yëf lañu ma sama maa leen bëgg si laa def ci xool bi di leen bëggee saa su di sawar saa su ne ma nekkee ci lutte simple dama leen a bëgg di gis parce que ñun lépp lu lutte simple di liggéey rek ñoom waa lutte lutte TV Leewtoo ñoo ciy dugg ba mu jeex donc dañoo kontaan am nañu fierté bu baax ci ñoom. ci sa ginnaaw kontaan na ñoo xam nga waa Jilas ancien gloire ñooy fecc loolu moo waral moom miy tàcc di dafa mel ni ñaar ñu xamante eh ilaha illallah eh xale bi daan ko war ko na ma ko la ilaha illallah la ilaha ko bett ko jàpp ko lank na ko mboot war ak moom rëpp woo laa ilaha illallah daan nanu laa ilaha illallah bu la taf daan na ko takk na ba ndimba turam ba eh na nu beneen ba sukkaat ndax di ci génn da koy sees na tànk ba tibb na tànk ba Ablaye Diop a ngi noonu. laa ilaaha waaw. yaram moo tàng na laa ilaha illallah ay Boy Faye Boy Faye nag li muy war naa di war na ko lamba na ko daan na ko bay na bopp ba ñoom mi tey day di doole mu ngi koy yóbbu la nii mu ngi di metti Faye jël na ko jàppante nañu mu ngi koy puus fu koy yóbbu da koy yóbbu attention Gaskel am nga avertissement bu ca delloo wóorul Boy Faye ngay jàpp moo ngay gën a jege ko laay laay la laa Gaskel wóor na ko ndombo penalty ba fu ñu ca jëm. Gaskel war na ko laa ilaha illallah Gaskel daan na ko waaw Boy Faye nanguwul Boy Faye d'accordul Boy Faye lu xew Faye am na la muy wax baaxul de non baaxul. na. puudar foofu sama as. waaye Faye jël am na wala amul. dara xëy am. xam nga li la yoon may. attention. Boy Faye ndax day bind recours lan lay def bëgg Fallou Boy Faye nanguwul. ah Boy Faye nanguwul. nanguwul nanguwul nanguwul mais bu xoolee ngembali ngembali xoolee ginnaaw ngembali bu xam naa gisu ko. waaw na ko rek. kon da ngay am na ci droit. non am na ci droit. attention. am na ko yoon may Moussa Fall il est libre de faire ce qu'il que am ko yoon may bu dee leerul mën na bind recours waaye ñu ngi koy xaar ba xam luñ di lu wane di mu jéggi gëtam. bi nuyu nañ la. maa ngi lay fay. xaw nañoo bëri ci bi. lu lamb la lamb la rek lamb la rek. mais ku déposé recours. ngeen di xool vidéo bi doon ko mën a jox victoire. waaw. waaw. waaw mais est-ce que amul dara loo xam ne dañ da ci mën a fekk caméraman bi wala ki nga xam ne moom mooy mbër mi. amul dara lu mën a fekk caméraman bi ci li muy def noonu. comme mu joxe film bi sans l'accord du CNG. non mbër bi mooy indi preuve mu xam fa la ko jëlee moom mooy indi preuve mooy indi preuve quoi. mbër mi déposé recours mooy indi preuve après yéen ngeen observé preuve bi. voilà lii du ma si gañ quoi suuf bëree tamit day man defoon naa rek wante nag defar carrière bi rek seet ay ndaw lan bi ñuy ñëw ba tey ay ndaw lan ndax dañoo teel di leen daan. ndam bu sedd guy si kawam. ce n'est pas encore facile pour daan ki nga ni mooy Boy Fall. dégg nga yombutoon pour am victoire ci kaw Boy Fall. waaw rek bu ëllëgee tamit mën na maa daan comme daan naa ko tey sport la amul problème. final ba ngooguy waaj. final la muy wax. fii ci arène Adrien Senghor. arbitre baa ngi wax ñoom biram li lamb nangu Gaskel demi final Libidor moo daan Ndiaga Dolé Gaskel daan Boy Faye. Leewtoo TV Babacar la Biram la Fall la Leewtoo kaw ca kanam lamb 100 pour 100. kenn laal ñaari tànk ya ñu ngi Leewtoo waa sëgg wane Libidor moo ñu wan ginnaaw. tey mooy le 2 février 2020 fii ci Adama Adrien Senghor. Doudou Niang a fi woote drapeau Mbayang Loum. fi maire Jilaas. Eh, ñuy nuyu waa Jilaas. nuyu waa ak yaay Babacar. nuyu naa waa Ngunjaan Biram ñing ñu waa Bawol yëpp. nuyu waa Diofior. ndeysaan waa Marot. nuyu waa Tataguine. nuyu naa nuyu naa waa grossement eh, waa sama dëkk la Caajaay muy nuyu sama papa boobu. waa Simal Fudaay. waa Simal Fudaay. waa Ndondol nuyu naa leen. Eh, nuyu naa maître Pape Sène séeréer la. lii da sama maire commune. Eh, daw na jël daw bañ na de. la ilaha illallah. laa ilaaha illallah. da ko bëgg a yëkkati gaskeel libidoor. da ko bëgg a calca tey. eh dina la war ndombo. war la bàyyi laa ilaaha illallah ca. laa ilaaha waaye libidoor waayi. waaye libidoor bu Grand-Yoff. waaye duut ñaan li nga tëgg neex. jàppante war nañu. libidoor. waaw mais. ñaari xale yi mën nañu bëre baabat. waaye ñii dañoo mën a lan. libidoor Grand-Yoff. wala Kayar bokk Kayar la nekk léegi. gaskel bu palmarès. yaakaari palmarès. kii yaakaari. Kayar yaakaari na jël ko mu bañ. ñaari njëmb yu waa Mbour géej nuyu naa leen. Karaaraay ba ca Mbour. maa ngi koy di nuyu Moussa Diop borom Los Production. ca Mbour mooy tëgg le neuf ca Mbour Sidi Diakhaté le neuf ca Thiès Khadim Samb le neuf ci Dakar kon biram làmb gi dox waaye le neuf daal moom dox na ak Babacar ala daw lay def le neuf daal yaay tànn tànnal foo fu la neex tànn sa bu la neex waaw waaw lépp a ngi leer tege ko la neex cey biram xoolal ngel jona ki nga xam ne moom mooy grand mañi seen combat bi daa war a leer war na leer de bëre leen ngel yaa grand ndeysaan final Gaskel à gauche Libidor à droite jalika faya mbooj kenn du faya dafa ñëw faya jàppale ki nga xam ne moom mooy mbayang lum ci drapeau waa ndeysaan dompat ci fot la bokk walaay dëgg faa lay filma leer loolu Ahmed Gala Babacar. direct ci Leewtoo TV. fii ci arène Adrien Senghor. Birame ñi ngay wax noonu. ay doomu ak yaay gi. Birame ñi ngi bu bu bu bu bu Ngoundiane. Chéri Ndaat. maître Pape Sène ñu ngi koy nuyu Babacar. waa di nuyu Mbaye Thion maire Ngoundiane. dégg nga loolu. du mën a yàq. waa Mbudaay waa Mburwaay. waa Thiandane. déedéet jekkul tax nga daan. jàppante nañu ko ne waaye ngeen suivre nuyu nañ la waa Italie waa Japon waa Algérie waa Angleterre waa Norvège Russie Afrique du Sud Bénin Côte d'Ivoire Mali Guinée équatoriale Guinée-Bissau Maroc Algérie Tunisie Arabie Saoudite ñëpp la ñuy nuyu kon boog ñu ngi suivre ca Tawiya. ndeysaan ca Aratuma. kenn du ñoom. ca Lambañ. kenn du ñoom. ca Kapro Ray. kenn du ca Simantéri ji Maliya. ndeysaan Simbaya. ndeysaan ca Dixir. du mën a ñàkk. Eh, mais biram fecc bi da ciy baal. mu ne. njom fi mu ndeysaan. nañ ko daanan te waaw boo leen jàppandee taxaw Babacar règlement bi da la naan bëre leen passivité ngongu biram eh passivité wuurul waaye jaaree année Senghor la jël ko attention libido daw koy dëpp naax xoolal mu nga yëngal bopp ba ñoom Pape Ndiaye Cédric Marcelin Ndour tukki Leewtoo TV waa Leewtoo TV lamb 100 pour du ko rax sa ñu ngi Bob Thialis Faye du moom eh waay ay la la eh Doudou yëngatu na déggal la muy wax nag jaar na ko ah attention attention am nga ñaari avertissement bu ñu ñettee ci règlement daw na song ko laa ilaha illallah waaw waaw il faut bu ko defulee si écope d'une troisième d'un troisième avertissement benn dootu ko fi Babacar l'avertissement. am la. bu ci ñett amee rek da ngay am defet. lu leer nga wax. te Libidor am na ci ñaar. kon da bu yóbboo góorgóorlu. Gaskel am ci benn. bu jeexee Libidor day ñàkk kon. bu teelee jeexee noonu wóor. Ah, ah, ah. te Gaskel. Gaskel Libidor jël na tànk ba Gaskel jëlaat na ko remplacé na ko daw ak moom. dem ña. na. dem nañu. Eh, ca biir nit ña Libidor du ko nangu boo génnee ñàkk bu génnee ñàkk Babacar jàpp nañu mu dëgër ci ngemb attention gaskel attention gaskel attention marche arrière booy def noonu bu yéegee ci nit ñi di nga am ñaari avertissement ngeen yemoo kon booy boo moytu gaskel lambi samp dafa garaaw. waaw daa yaa doy waar. Gaskel Jammeh. l'enfant chéri de Palmarin. ñu nuyu waa Palmarin yëpp. dañu ah. li bi doon l'enfant chéri de Kayar. Gaskel lañ koy laa ilaaha illallaah waxoo. yóbbu na ko. yóbbu na ko. Babacar. waaw waaw. Gaskel jël na Aja Biram fay naa leen bu baax a baax. est-ce que demoon nga bay ñibbi. waaw. tey nga mujj Biram oh. dañoo bokk si làmb dañoo bokk si làmb damaa demoon bay ñibbi am benn boy bu jël licence am retiré ko dugal ma maa ngi koy di ko gërëm bu baax a baax vraiment kontaan naa bu daal kontaan naa bu waaye li fi jaar yëpp yéen a ko gisandoo fii la woon Doudou Niane moom moo ko tëggoon Djilass production def drapeau Mbayang Loum lamb ji fees bay tuuru waaye Moussa Fall li ñuy tàggatoo mbokk yi mooy champion bi taxaw ñu leen di wax miin na fii tàmm na ko ñëw di seetaan waaye tam ñëw di démb di bëre doon champion mbër waada la kon jëlal way wa Mbayang moo fi àndoon ak nga xam ne moom mooy Djilass production Moussa Fall ci caméra bi mbokki Leewtoo nuyu nañ ñëpp di leen jaajëfal ba beneen incha allah